page yu Mamadou Gueye président convention citoyenne ñeneen tey jii nag di euh, samedi 2 octobre ñu ngi fii ci école euh, Salif Ndongo bu nekk si Thiaroye Jidda Kaw tey jii nag di bés bu rëy di bés bu mag di mooy euh, deuxième édition wu journée bi nga xamante ni tey dañuy def circoncision de masse ki ko initié nag di kenn ku dul doomu gox bi di doomi banlieue bi di ki nga xamante ni moom nee na lépp lu ko ñor mooy banlieue bi ki nga xamante ne tey jii bu jógee rek ñëpp xam ne ni yitte banlieue bi lay jóge kooku mooy le président Mamadou Gueye président de la convention citoyenne Neneen muy jàmbaar bi nga xam ne ni fii la juddoo fii la yaroo fi la màggee nee na nag lu mu am daf ko bëgg a bokk ak nga xamante ni ñooy waa Pikine surtout waa Thiaroye Jidde Kaw ah, tey jii nag comme ni nga ko gisee journée bi commencé nit ñi commencé nañu ñëw fii école bi Ah, parents yi aussi gis nañu ñu ne seen i njaboot ah, tey jii nag euh, li ci li ci yokk mooy dañoo fas yéene def 200 euh, xale lañ nar a dugal euh, néegu góor 200 xale lañ nar a dugal néegu góor loolu nag di loo xamante ni lu bi di kontante la askan bi di di di gërëm la ndax tey jii alalam mënoon na ko def feneen. mais macha allah li mu def mooy def néew bi doole yi képp ki nga xam ne seen njaboot waroon naa mën a ñëw dem fay mais lépp wàcce na la ko muy yére muy lépp loo xam ne soxla na ko rek daal la koy defal gratuitement kooku mooy le président Mamadou Gueye président de la convention citoyenne di doomu askan bi ah, di ñu fa yéene ànd ak yéen dem xool li nga xamante ni moom moo tàmbale fii ci bés bi. Euh, comme ni ngeen ko gisee nii ñu ngi nii di jublu benn euh, bërëb bi nga xamante ne ñi fay inscrire xaw nañoo bëri mais dañuy dem wan leen naka lay deme ñu ngi seen foofu di soxna Ndeye Diagne ñu présenté les femmes de la convention citoyenne neneen ñu fiy gis aussi ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi man moom laa ñëw sax aussi ñii déggoo ma naa est ñoom woowuñu leen sax. alma lew na tubaab. kii bi coordonnateur bi moom aussi mu ngi ci liggéey bi. keneen ki laay lew na tubaab. ban tur la. ndax Ababacar Sy. 134. non non xaaral kii pare kii kii may. soxna Ndeye Niang ñu ngi présenté de la convention citoyenne Mamadou Gueye président 134 bi mooy deuxième journée bi am na organisation bi xam fii di président def na ko waaw di ci am mbégte bu baax di ci am mbégte bu wax ne rek lii defati na ko dañuy la deuxième édition da ci kontaan bu baax nga xam ne lii mooy jege population lii mooy jege sa askan fekk la ñu gën a soxla nga defal leen ko mu jafe leen lool nga yombalal leen ko loolu moom du ñu mën a sant ci yàlla te gërëm ko ci ñaanal ko ci yàlla ba nga xamante ni bi 135 si dina gën a mën lu ko raw gën koo mën a def 135 ren décentralisation bi nga def ñu wax ko ci beneen école daa ñu war a def sociale 136 président mu ngi koy def ak bi waaw day wane ni rek moom jóge caare kaw gi yëpp la couvrir xam nga yemul benn côté rek su doon chaque jour dañ koy def feneen day mën a nekk mais tey jii ko defee fii defee ko feneen day wane ni fu ñu am ay nit rek war nañ leen a jege ba ñooñu xam ne ñoom ci lañ bokk centralisation bi loolu lay dund wane ni ñëpp ci lañ bokk kon ñëpp ñu ngi leen di woo dugal ci seen loxo te gis nga organisation bi ci suba teel bi nii ni mu demee xam naa ci kanam tuuti dina gën a am rëcc waaye ñu sant yàlla bu baax ni mu jegee kanam ak ñu ngi leen di taxawoo ak ñu ngi leen di jàppale di ko ñaanal yàlla rek yàlla yokk ko gën koo mën a taxawu ba mu mën a def li mu li mu bëgg a defal ci Dakar comme ni nga ko gisee moom mooy femme de la convention di soxla Ndeye kàddu am solo yoo xam ne jël na ko yëkkati ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci liggéey bi ñu laaj leen ko ci ñoom liggéey bi tàmbalee. bu yóbbu bu yóbbu bu yóbbu ban la. passé mi na Mamadou Gueye président Moussa mu yi si a baax di leen di jaaree di leen wax Pape Mamadou Ndiaye waaw bis bi tey moom vraiment bis bu bu ñu neex la parce que tey le président Modou Gueye dafa ñëw ci école Salif Ndongo pour xarafal fii ñaar téeméeri xale voilà ñun ñu ngi fii côté secrétariat yore liste euh, yi bon. 137 pour l'instant daal vraiment liggéey baa ngi dox euh, nu mu waree. waaw nit ñaa ngi ñëw ñu ngi. 137 médecins yi commencé nañu dogal bi ñu ñaan rek ñu ngi ko commencé ci ah. bisimilah rahmaani rahiim yàlla may ñu gis alhamdulilah rabbil alamin politique sociale bi ñu wax moom ñu ngi koy jaajëfal rek di ko ñaanal yàlla mu gën ko yokk doole gën ko may kàttan ba nga xamante ne li mu nekk nii rek yàlla may ko ci doole mu gën ci nekk parce que xool nañ depuis 2014 euh, ñu ci social dafa dañ première édition bi en yàlla dogal euh, année bi passé mu am Covid bi ñëw ñu tëb ko ren aussi mu mu ko. li ñu mën a waral ci président Modou Gueye mooy l'homme social. preuve sax euh, euh, l'homme le plus social ci département de Pikine. voilà vraiment lool tamit mu nekk mérite boo xamante ne ñu ngi ñaan yàlla. 138 ban kàddu la yàlla ci dooleel. jërëjëf waaw comme ni ngeen ko moo ëpp lu muy bi. ci banlieue bi moom mu nekk koo xamante ni jàmbaar laa bu ñu ko waxee rek euh, nomination boobu muy lu mérité muy loo xamante ni bu ñu ko joxee askanu Pikine bi yëpp d' ni li muy def ci lu baax mu ëpp fukki junni yoon ah donc kooku mooy président Mamadou Gueye président convention sociale ñu ngi tax ak ñeneen ñaar ñoo xamante ni tey jii euh, ku ne Alassane xam ni mooy jàmbaaru parti bi ku ne Alassane xam ni mooy le coordinateur ki nga xamante ni tamit mooy boole ba lépp nekk benn ba Ah, Alassane wax ma ngeen toog benn place jóg leen ngeen di wër fu am problème yi ñu jëm ko rek. Alassane eh, yaa ngi en direct si page bi Mamadou Gueye eh, président tey jii yaay coordonné li nga xamante ne mooy journée de circoncision en dimanche bi. Alassane naka nga naka nga naka ngeen préparé bés bi ba yegg tey. waaw merci beaucoup maa ngi nuyu ñëpp di leen jaar euh, journée de circoncision bi tey mooy deuxième édition deuxième édition boo xam ne ñu ngi koy def mooy yore organisation bi quoi. donc euh, ñu war a xarafal deux cent personnes donc zone bu nekk au niveau di de Thiaroye ko jël nañ fa ay nit donc préparation bi coordinateur de zone yeeg ak euh, les militants ñoom ñëpp ñu ngi siy jàpp ñoom ñëpp jàpp nañ si ba journée bi mel nii quoi donc euh, dafa amoon deux commissions commission médicale ak commission d' organisation donc commission médicale ñoo res médecin yooyu et cetera commission d' organisation bi donc ñoo yore organisation tey bi quoi. Mm. macha allah parents yi ñoo doon en masse. Mm. donc euh, depuis 6 heures du matin lañ fi ñëw. Mm. donc ñu ngi fi en masse quoi. Ah, bi mooy euh, deuxième édition bi. tey jii ñu gis ni kii di euh, président Mody Gueye defoon na ko. ak ren ñu daal ko fii lan moo waral changement bi lan moo waral tamit aussi décentralisation bi. donc dañoo xam ne Djiddah Thiaroye Kao dafa fas. dafa fas mu ngi jógee Pikine Nord ba fii. te je crois que fii électorat bi fii la ëppee donc suñuy membre yu bëri fi la côté bi doon nekkee donc c'est en réunion de de commission la ñu décidé rek ñu décentraliser affaire yi au lieu ñu yemale ko rek base base kii base président Mamadou Gueye mais ñu décentraliser ko un peu ñëw côté bi quoi moo tax te ñu defee ko mais au niveau des soins donc xam nga trois jours yi nag day ñëw fan yi mais beneen école au niveau de kii école ñu fay def ay tirage kii quoi pansement yi quoi tant que coordinateur ñu gis yaa ngi liggéey liggéey am solo tey bu ñu nee président la banlieue tey jii boobu ndax ngeen def ba yegg ci ci ci ci ci ndam loolu. président président Mamadou Guèye mën nañu wax rek sax social la ëpp moo nekk ci dërët président Mamadou Guèye waxuma la sax. Xarapal euh, Xale mais au niveau des écoles au niveau des mosquées au niveau des quartiers donc yooyu yëpp da siy teg loxoom donc day euh, da siy kii te moom bu bu lay defaral bëggul sax ñeneen xam donc ñu ñoo bëgg rek des fois ñuy fësal affaire am mais moom lu muy def bu fekkoon yëpp xam nañ ko donc du fi xaj donc c'est l'homme le plus social de Djiddah Thiaroye Kaw te moom amul du hésiter sax du hésité tax pour régler problème bi donc président Mamadou Gueye c'est l'homme idéal vraiment di Djiddah Thiaroye Kaw action yu mu fi def amul benn euh, amul kenn koo xam ne ni mu ko fi def te yooyu yëpp déjà daf koy def avec effacement donc wanewul boppam quoi donc yàlla rek moo tax comme ni mu ko waxee kooku mooy Alassane nee na Mamadou def du bëgg sax ni nga xam ne mu ngi def muy koo xamante ni day def euh, te yàlla rek tax mais lii bu koy def aussi dafa bëgg jàppale ki nga xam ne moom askan euh, ñi nga xamante ni ñooy ñooy doole yi nga xamante ni moom jàpp na alalam war na mën a yegg si ñoom dooleem war na mën a yegg si ñoom. comme ni ñu ko gisee askan bi ñu ngi nii toog euh, ñëw nañ en masse fas yéene indi seen i doom ñu defal ñu ñu war asalaamaaleykum. waaleykum salaam yéen a ngi si page en direct Mamadou Gueye président convention citoyenne yeneen tey jii nag di bés bi naka ngeen dundee bés bi. ah bi de xanaa ñu préparé ko ndax suñu président Modou Gueye dafa baax am jom bëgg askanam parce que dafa nekk ci yoon te xam nga ne ni yomb ci quartier bu toll caare ji da dajala mbooloo mu toll nii ñoom ñëpp nga def social bu mel nii dañ koy ñaanal rek li bëgg ci jaare ji dako borom bi defal ko ko mention spéciale pour Modou Gueye ñun ñoom ci parti bi lañ bokk waaye mi liggéey liggéey bu am solo liggéey bu rafet sax parce que lii yombul moo Gueye daal ca kaw ca kanam dañ koy ñaanal rek parce que moom lépp ci social lay dox. naka nga gisee ñi nga xam ne waajur ñoo ko daan def tey mu ne lépp gàddu naa dañuy dugg néegu moo la ko gàddu. c'est que lii nii bii day boo xam ni def na defaat tey ku mel ni man sama doom war a jong tey aw ma moyen boo xam ne day jong ku mel ni président moo Gueye ñëw di ma ko defal xam nga ni kooku dañ koy ñaanal parce que xam nañ ni dëkk bi metti na feebar bi bari na Covid baa ngi fi. kon Modou Gueye lii mu def du man rek la ko defal defal na ma ko defal ko keneen ndax borom njaboot boo ko dimbalee yaa ko moom nañu waxante dëgg tey am na koo xam ne tey moo ko waroon a def nga def ko tey président Modou Gueye ñëw def ko kon dañ koy sant di ko gërëm waaw moom am na fayam ñii tamit si askan bi lañ bokk ñii tamit day léegi si bokk na ñi nga xam dañoo indi seen seen njaboot soxna si ñu leen di nuyu ah, yéen a ngi si en direct page Mamadou Gueye naka ngeen euh, dundee bis nga xam tey Mamadou Gueye na ko fii ci Caaroy Jidda Kaw. xanaa di ko rafetlu rek te di ko ñaanal yàlla. li mu bëgg moo ko xam yéen la ko suñu jox ko ñaanal ko ci barke Seydina Muhammad moom rek lay jox comme ñu ko ñëpp waxee lii du première fois chaque année da koy def chaque année da koy def moo lay jëlal say waatal xar fala la ko toppatoo ko faj ko ba mu wér doo ci joxee dara bu paree mu feetal leen te xale xam nga ne moom koy dimbali moom yàlla moo lay dimbali parce que yàlla moo gën a fonk xale soxna si yow da indi ay njaboot ñuy sant nag Modou Gueye ndax lépp nag moom ndax tey tax na jaboot bu ne sa xel dal te ko ànd ak moom yi rusloowu la ndax Modou Gueye lépp ci social la mu ngi dimbali néew di doole yi mu ngi dimbali ñu feebar tey lii rek te ñëpp dañ nii nit ñi sax dañuy bëgg a def xarafal ndax képp kuy jullit xam li ci xarafal kon moom bu defee boobu social yàlla lañ koy bàyyeel yàlla na ko yàlla fay yàlla mi mun a fay nag yàlla na ko fay li muy yóotu yàlla na yomb ci moom ñu koy ñaanal nag ñun ñu àndal moom yàlla na ko yàlla gën a may lan ci kanam yàlla na ko saytaane rand lépp lu muy ut yàlla na ko yàlla yombal yàlla na ko yàlla may doole ju muy dawee di ut di defal néew di doole yi ak social am man loolu laa koy ñaanal ñaanal ko nag li nu bëgg yàlla nañu yàlla defal li ci kanam. amiin li mu bëgg mooy doon meeru Thiaroye Jidda Kaw tey ñu koy ñu ko koy ñaanal ki nga xamante ni mu ngi def te doonu ko dara kooku bés bu doonee dara xel war naa mën a dal kooku mooy le président Mamadou Gueye de la convention citoyenne Ngéniène muy jàmbaar comme ni ko waxee rek boo xoolee lii nga xam ni li ko def xol la boo xoolee nii xam ni ki ko def jàmbaar la kooku nag du kenn ku dul doomu gox bi du doomu. Euh, banlieue bi kooku mooy le président Mamadou Lamine Gueye bi nga xamante ni mooy jàmbaaru Pikine bi nga gisee nag parents yi ngi nii nit ñaa ngi nii toog ku nekk di xaar sa waxtu nga war a a dugg dugal sa njaboot. am na nag ñu jotee yegg sa ñu gis ay xale yoo xam ne ñu ngi ne toog dañuy ànd ak yéen ñu dem xool leen. I love and them. And praise you for love and them. Slow, Katema, slow. Slow, Katema. Comme vous savez, nous venons. Alpha et slow, mon colo, Katema. Pour le slow, Katema. Slow, Katema. intervention Allah'ım yardım. Ne arıyorsun? Kurtar yani. Okey. waaw kii di président Mamadou Gueye yegg na fii ci école Salif Ndongo di def ab visite bi nga xamante ni fii la. yéen a ngi fi. waaw moom kese topp leen ko moom kese mooy topp dem leen. masa masa. waaw merci beaucoup. oh. ñu ngi ziar da ngay dégg. ça va ça va bien. ça va bien. ça va bien. non non cameraman photographe ko ko def non day ku nekk yaa ko ñu déplacé waaw xool dem ba man ko lu aada da ko jël dem léegi dama masale bu baax a baax masale coono non non ça va sëñ Fall la tudd. ah. moo tax kenn mënu kilifa. kilifa ñu ngi lay ziar sëñ bi. macha ah, eh? ah, ah, allah si xel. dinaa na ngeen def. ça va de kër. mbaa na ngeen si jàmm. yàlla na yàlla na xale yëpp wér. ah sëñ bi lay siyaare bu baax. alhamdulilah. yàlla yàlla moo tax. yàlla yàlla moo tax. sëñ Saalum sëñ Saalum. ah sëñ Saalum ah macha allah. sëñ bi bu def loolu yëpp rek. ah yaay kilifa gi ah. yaay suñu kilifa gi lépp. ah. macha allah nekk na lu am solo. dafa képp mooy boo ñëwaat rek ñu ko waaw amul benn problème loolu moom su ma ko defee sax loolu loolu bëgg Sali aussi yë yëpp ñu ngi fi waaw yëpp ñu ngi door ko waaw. gars yi gis nga gis nga membre du parti. waaw waaw noonu la. waaw lii vraiment kontaan naa waaw waaw waaw waaw waaw waaw moo ne moom moom yëngu liggéey bi. yëngu liggéey bi waaw waaw mais nan la rek. salaamaaleykum. jërëjëf Massa Wade ñu ngi baax. Massa Wade ñu ngi baax. Mamadou. ah yow sama yow jëlee macha allah yàlla yàlla moo tax yàlla na si loolu rek toog et puis bon courage et puis ma semaine sonn naa vraiment merci pour tout vraiment lii waa ça me touche ça me touche vraiment mais jaamu yàlla la aussi yàlla na ko yàlla na ko waa jaamu yàlla ça va tamit noo tudd yow Habib Camara ah yow gëjee nga yow ragaloo ah bu ragal dégg nga li méttiwul day jàllale dégg nga. incha allah allez bon courage. merci beaucoup merci merci beaucoup. président. président. comme ni ko waxee rek répartition bi yaatu na lool. nekk ci asalaamaaleykum ça va na ngeen def waaye si jàmm ça va ñu ngi leen di ziar baax na ngeen def xam nga waroo jël. dégg c'est lui le futur maire de Gueule Tapée c'est lui c'est lui le futur maire de Gueule Tapée c'est moom la ñëpp bëgg waaye yow dana nu ñëw ñu a gënu ñu dara suñu yaay suñu papa daa ñëw suñu yaay daa maa fekk. mu ngi lekk lool des classes, euh, euh, qui sont autant d'événements qui ont beaucoup d'argent aux chefs de famille. On sait également que la période des vacances en général la période pendant laquelle les circoncisions se, se, font dans mais compte tenu de toutes ces dépenses qui ont été mobilisées par les chefs de famille, il a été compliqué pour beaucoup d'entre eux, ces chefs de famille de pouvoir faire face également aux dépenses euh, afférentes euh, la circoncision de leurs enfants. Donc c'est pour nous un devoir de le faire. On est issus de ces hommes on a grandi dans ces mêmes conditions, on vit encore dans ces conditions, on voit par nous-mêmes euh, les difficultés auxquelles font face les chefs de a on en est conscient, d'accompagner ces chefs de famille-là autant que faire se peut pour leur, pour soulager, au, moins de cette charge-là de, supporter la circonscription de leurs enfants. On va vers les ouvertures euh, des, classes. Là également, euh, si Dieu nous prête bien et que les moyens sont mobilisés, Inch'Allah, on sera à côté des parents d'élèves comme on l'a toujours fait. On va les accompagner dans la mesure de nos moyens en termes de fourniture, en termes euh, d'accompagnement Inch'Allah, c'est ce qu'on compte faire. Euh, il en est de même du suivi, parce qu'une chose est de faire l'opération ponctuelle, une autre est de faire le suivi jusqu'à la fin de l'opération. En tout cas, nous, c'est l'engagement qu'on a les médecins, de faire en sorte que tous les enfants qui sont suivis de façon rapprochée, on ne le souhaite pas, s'il y a des complications également, qu'il puisse y avoir une intervention très rapide et très diligente pour justement venir à bout de ces euh, nuit de Kassak, qui va être nuit culturelle, mais qui va également ressusciter nos, nos valeurs, qui va euh, faire vivre aux enfants une fête, comme aujourd'hui c'est une, une, journée assez douloureuse pour eux. Il est, il est clair également qu'à la fin, il sera bon pour eux de pouvoir festoyer, de pouvoir communier avec eux. L'occasion aussi nous sera donnée de communier avec les parents et Inch'Allah de prier ensemble pour toutes les familles de Djeddah Thiaroye Kaw pour toutes les familles de Pikine et toutes les familles du Sénégal. merci merci. merci. merci. Thank you.